bunt bi jàngale ni ñuy jàppoo waxoon na ni ngay commencé jàpp ba ci bëkkan bi ne su ma yastanshiqu topp mu sorox ndiku bi an fii ci bakkanam almaa a ndox maanaam na dugal ndox ci bëkkanam wa yastansiruhu tam fiiru ko mooy mu génne ndox mi salaasan ñetti yoon raxandiku ñetti yoon la raxandiku ñetti yoon yajal dana def yeddoxoo loxom ala anfihi ci bakkanam kam tixaatihi comme ni muy ñandoo na muy ñandoo rek noonu lay génnee ndox mi ci bakk bakkanam wayu gisi uhu dana ko dooy aqalla la gën a néew min salaatin yoon fil madmadati ci galaxndiku wala istinshaaq ak soraxndiku galaxndiku bi ak soraxndiku bu ko defee benn yoon dana baax waxoon nañ defe naa ci dars bi weesu ne yonent bi sallallahu alayhi wa jàpp na raxas ay cëram benn yoon jàpp na raxas ay cëram ñaari yoon jàpp na raxas ay cëram ñetti yoon kon yow boo jàppoo raxas say cër lu manqué ñett baax na moo tax mu ne dana ko way jiwu dana ko doy aqalla la gën a néew min salaatin ci ñetti yoon fil madmanati ci garaandiku wala ci saaq ak sorandiku defe naa wala wu ñaan na ko jamu zaalika dajale loolu fi xarfatin waahidatin ci benn tànk bi wa nihaayatu waaye ba nag axsanu moo gën a rafet galaxndiku ak sorandiku mën na ko def ci benn tànk bi naa ci dars bu weesu sharxaana loolu comme yaatal ko li aju yëpp jeexal na sunna yi jiitu farata mu ngi dugg nag ci farata yi gannaaw war a sa loxo galax ndiku sorox ndiku fiiru raxas kanam nga moo ca tegu moom la wax ne summa topp mu jël almaa ndox mi inchaa bu ko soobee bii day ci ñaari loxo mi jamian mboolem seen inchaa bu ko soobee bii di ci loxom alyum naa bay ndey joor fay jaalu mu def ko fii day ci ñaari loxom jamian mboolem seen ci gàttal daal ndox mi moom balaa muy dem ca kanam ga ñaari loxo yi ñoo ko fa yóbbu bu ko neexee nag mu jël ñaari loxo yëpp daal di tànk ndox dem raxas kanam ga bu ko neexee mu tànkale ndox ci loxo ndeyjoor ba sotti ko ci càmmooy ba door dem ca kanam du sotti lépp ca càmmooy ba mooy dafay sotti dara ci càmmooy ba nga xam ne ñaari loxo yëpp am na ndox mu toxal ndox mi dem ci kanam ga su ma yan xuluhu topp mu toxal ndox ma ilaa wajhihi mu jëm ca kanam ga fa yufriguhu mu teqale ndox mi alayhi ci kanam ga maanaam mu tasaare ko ci kanam ga xaasilan daj raxas lahu ñeel kanam ga biyadayhi ci ñaari loxoom ya dafay tànqee ndox ñaari loxo yëpp teqale ndox mi ca kanam nga raxas lépp wala mu tànqee ndox ci loxo ndeyjoor dal di ko sotti ci loxo càmmooy manam soti dara ci loxo ci càmmooy daal di yóbbu ndox man ak ca kanam ga pour raxas kanam mi muy commencé raxas min ala jabhati ci kaw jëb ci kaw jëb bi lay commencé raxas jëm ci suuf su ko defee loolu moo bi sharhun di ab charaxa بس ما شرعت مصوب في الكلام تي fil ala sifati fi'lil faraidi ci melo def faratay farataay njàpp yi naka lañ ko war a defee moom lay jàngale fi qawli ci waxam jum naan summa ba'dal istinsaari gannaaw fiiru yaa fiiru mooy génn ndox mi ci bakkan yaa xusu dafay jël almaa ndox mi insha bu ko neexee bi day ci ñaari loxo mi jëmee an mboolem seen fa insha bu ko neexee yaxudu dana ko jël bi di ci loxoom aljum naa buy ndeyjoor laanal axsa ndax jël ndox mi bihaa ci ndeyjoor asalu moo gën a yomb kon jël ko ci ndeyjoor dafa fekk ne moo gën a jàppandi rek waaye nag mm, tekkul ne ndeyjoor nga ko war a jëlee mais bu dee tànkee ko ndeyjoor moo gën ci ngay gën a jekku nga tànkee ko ndeyjoor mooy gën ndaa yuridu laahu bikumul yusra yàlla dafa bëgg lu yomb ci yéen bëggul lu jafe kon lu nekk rek ñaari mbir daal buñ taxawee tànnal ba ci gën a yomb su tànkee ndox ba pare fay ñaalu mu def ko moom ndox ma ay Euh, dégg nga yu sayyiruhu dana mujjël ndox ma fii day ci ñaari loxo mi jamian mboolem seen dafay mujjël ndox mi ci ñaari loxo yi كنا يقولون ابن عبد ثم بعد تفريغه غناو بوم تقل ندخ ما في يديه سي نياري لوخمي ينقله نتخل ندخ ما الى وجهه جم تي كرمغا فيفرقه متقلك عليه تي موم حالة كونه مبير موم ما اك نيكام مانا جمون بي خاني ماغا نيك غاسل نداجي راس له نيل كرمغا اي لوجهه نيل كرمغا su defee ndox ci ñaari loxo yi ba pare na toxal ndox ma nag mu jëm ca kanam ga mu teqale ndox ma ca kanam ga di ko ragg di ko raxas raxas mooy lan ay lu mu ci raxas gi daalikan mu aji ragg lahu ñeel kanam ga bee ñaari loxo in qadara ne mën na ko dafay ragg kanam ga su fekkee mën na ragg kon raxas gi dafay ànd ak ragg wa illaa ndem mënul ragg istana ba mu wutal maanaam lislaam loo mënul wàcc na la bu dee wuut ku ko raggal comme sarraxu comme nuñ fi la xut si sangu sangu it boo mënul ragg da ngay ku la raggal jàpp it boo mënul ragg da ngay wut raggal boo mënul ragg amoo ku la raggal nag masala moomu danañ ko jàng ci kanam wahaji lii moom al faridatu ula mooy farata gu njëkk gi mooy raxas kanam mooy farata gu njëkk min faraidil wudu ci farataay njàpp yi moom xaslul waji mooy raxas kanam wa istifaadu danañ jëriñu min kalaami ci waxam annahu ne li am baam laa yustaratu duñ sartaal muqaaranata dalki lënkaloog ragg ga li sabbi ñeel sott ga du sart ne booy ragg ragg gi dafa war a ànd ak sotti ga loolu du sart man ngaa sotti ndox mi ba pare door a ragg woowa loolu al mu'tabar mooy luñ ko kon nekku ne jamono bi ngay sotti rek danga war a ragg demeewul noonu man ngaa sotti ba pare door a ragg loolu mooy wax juñ sukkandiku nga déggee si ne kon dafa am ñu ne jamono ragg gi sotti gi moo ñoo war a tolloo ñoo war a ñoo war a tolloo waaye lañ sukkandikoo mooy dangaa war a bu neexee nga ngay sotti di ragg boo neexee nga sotti ba pare door ragg wa in kaana dina nekk na al akmal la gën a mat mu muqaarana lënkaloo nga boole ragg ga ak sotti ga nag moo gën a mat dégg nga boole ragg ak sotti ga moo gën a mat maanaam di sotti di ragg wala neexee nga sotti ba pare door ragg waaye ragg ngay sotti di ragg moo gën a mat kon karam ga def na ne na ko ragg loo koy raggee sa loxo yi wal muraadu lañ na mu bee day ci ñaari loxo mi baatina kaffayhi mooy biit ñaari tënk yi kanam nga sa ñaari loxo nga koy laggee ñaari loxo yi nag mooy biit tënk yi mooy boo doon téye dara fi nga koy téye loolu mooy tënk xam nga gannaaw loxo ba kenn mënu ci téye dara biir loxo bi ngay téye dara buñ la joxoon dara fa koy téye foofu mooy tënk foofu nga war a raggee sa kanam lan na dal ka ndax ragg fi mu duy ci njàpp inna maa yakun naka dana nekk bihimaa ci ñaari tënk yi kon soo raggee ci njàpp fudul ñaari tënk yi njàpp bi baaxut xanaa tànke moo tax mu ne falaa yujzi du doy ak dal ragg bi zahiri ka fii ci bitti tënk yi gannaaw loxo ba mooy fi ngay jàppee gannaaw ga tënk mooy lay xonq ci biir loxo ba mooy fi ngay téye gannaaw ga nag boo ci raggee woon njàpp li baaxut kon ragg gi biir tënk bi rek nga ko mën pour mu baax way bo ragge bitti tenk walla nga ragge fenti yaram bi ceeru jappuɗi subo ba jappuɗiɗu ba mo tam mune fala jiwɗu ɗo ye addal ko ragge ɓe zahiri ka fi ci bitti tenk ɓi wala ɓe mirfaqiɗu cagan ci concoyi ma imkani andak jappanen ɓe batidi ka fi ci bit tenki bo mane ragge sa ceeri jappuyi ci bit tenki nga ragge ko fudul bit tenki ɓi jappuɗi ba amma somunu ragge bit tenki man nga ragge fi nga man ragge wa axraa rawatina xeeruhuma lu dul ñaar yooyu bu boo raggee biti tënk wala coon ci sa njàpp yu baaxul kon boo raggee beneen cër bu bokkut ak yooyu waxatuñ ko maanaam bu doon lex bi la raggee loxo yee ci misaal njàpp li baaxut dégg kon ragg bi tënk rek lañ ko mën a defee boo ko defee lu bi tënk njàpp li baaxut ci njàpp na lañ wax illaa fi dalki ixdar rijlayni lu mooy ci ragg benn ci ñaari tànk yi bil oxra ci beneen fa innoo nag moom yu jiw dana doy ala qawli ibnu qasim ci waxu ibnu qasim ibnu qasim nee na booy jàpp bu la neexee nga sotti ndox mi benn tànk bi nga raggee ko beneen tànk bi moom ibnu qasim nee na loolu daggan hmm. kon ci wax ibnu qasim boo ci sukkandikoo booy jàpp mën nga raggee tànk tànk waaye lii gën a wóor mooy nga raggee ko biit loxo bi rek bu dul cëri njàpp yi nag bu dul tànk nag ci cëri njàpp yi kooku moom biit loxo rek moo ko mën a ragg li annal xusla mu ne tënk gi ko tënk waqayat naa tënk nañ bi ci njàpp njàpp lañ la wax ne la biit tënk yi rek nga mën a raggee li annal xusla ndax sangu yee juusu dana dagan fii ci moom zaalika loolu hmm? al aadaaw yenn cër yi bi baadiyaa ci yenn sangu moom na nga ragg rek noo mën a raggee ba mu tooy baax na bu neexee nga raggee bopp raggee lox lex raggee sa bu gi mooy lox ba raggee mbagg kii nu mu tuddi pëdëg ya mooy la sës ci mbaggee noo raggee baax na sangu na nga na nga ragg rek moo ci am solo loo ko raggee baax na waaye jàpp moom biit tënk rek nga mën a nga mën a raggee lu mooy tànk ba mën ngaa ragee tànk tànk ci ibnu xaasim ten bi haat li ay yeetara bu njëkk bi rubuma yuta waxamu amaana defe defe mooy njortu lu amut min qawlil musannifi ci waxu taarifkat bu mu wax ne yanquluhu na ko toxal ilaa jëm ci kanamam chartiyati naqlil maa i chartaab toxal ndox el addu yi jëm ci cër walaysa tanbiir mi nekkul kazaalika comme noonu dégg ndox mi bu dee cër bu ñuy raxas la lañ wax cër bu ñuy raxas ndox mi mën naa sotteekul boppam nga raxas bu waxee ne danga ngaa war a toxal ndox mi ci sa kanam gi dafay mel ni ko ndox mi foo nga tànk ko toxal ko raxas sa kanam mu baax fekk demeewul noonu walaysa nekkul ka zalika comme noonu innama charte naka charte ba mooy isaalul maayi egg ak ndox ma ilal ond wi jëm ci cër bi lay charte daal mooy ndox mi na egg ci cër bi waaye nag du charte ñu ne dégg nga yaay tànk ndox mi eggale ko ci bi déedéet boo yoroon robinet robinet bi di xelleeku sa kaw cër ngay raxas baax na ndax ndox mi yegg na waaye du force nag ne foo nga tànk sa loxo eggale ko ci cër bi pour mu baax moo tax walisa lii moo tax law xasala bu raxasoo nox du woon cër minal matri ci taw ba inda nuzulihi ci jamono wàccam aw min ma il misa bi wala ci ndoxam rëbëne ba la kafaa dana doy su fekkoon taw bi mooy wàcc ngay raxas sa cër yi ci ndoxam taw bi xam nga toxaloo ndox ma waaye ndox mi mooy hegsil boppam yow dangaa ragg rek ci ndoxam taw mi wala robinet bi di wàcc ngay ragg njàpp li baax na kon tànk sa loxo heggale ko ci cër ba raxas ko du charte lay charte mooy ndox mi hegg ci cër ba ak nu mu fa mën a yeggee baax loolu nag wax naa ne na ci cër yi ñu war a raxas cër yi ñu war a raxas mooy loxo yi ak kanam gi ak tànk ya amma cër yi ñu masaa moom toxal ndox ma pour masaa ko charte la ca hmm. moo tax mu ne way ne maa yustaratu naka da leen a naq toxal ndox ma fi masir rasi ci masaa bopp bi ida urida buñ bëggee masxu masaa ko su fekkee dafa war a masa bopp ba xam nga bopp masaa moo ci gën waaye boo ko raxasee dana baax bu dee yow li nga jublu mooy masaa bopp foo nga toxal ndox foo nga jël ndox sa loxo yi bàyyi ko ba jeex nga masaa ko masaa ak raxas la leen wutale mooy raxas moom doo bàyyi ndox mi mu wodd ba jeex foo ndox des nga raxas rag boole ko rag loolu moo di raxas waye so jëloon ndox mi bayiko bam jeex sa loxo nga rag sa cër bi yow raxaso da nga mësa jàpp ne baxut kon cër bi nga wara raxas bayil ndox ci loxo ba wala bok ndox sotteeku ci cër ba nga raxas ko rag ko so jëlé ndox tek ko sa loxo nak bayiko bam jeex tak nga ne ya nga rag cër ba yow na nga xamne baxut da nga masa bop dañ koy masa kon soy masa sa bop boo tànqee ndox da ngay bàyyi ndox mi ba mu jeex nga jaarale ko ci bopp bi daal di ko masa su fekkee da ngay masa kon foo nga toxal ndox foo nga jël ndox def ko sa loxo yi waaye doo bàyyi ndox mu sotteeku ko sa bopp bi nga masa su boobaa masa wu bopp njàpp li baaxul da ngaa bëgg a raxas bopp bi nag mën bàyyi ndox mi mu sottee ko sa bopp bi nga raxas ko njàpp li baax na waaye defoo li gën moo tax wa amma law qasada waaye bu jubloon xas lahu raxas bopp ba niyaabatan mu remplace an masi ca masaa ko la kaana kon mu nekk ka baqeetul aadaay comme yeneen cër rek kon booy jàpp ci robinet wala ci taw mën ngaa bàyyi robinet bi muy sotteeku ci sa yaram bi ngay raxas waaye boo demee ba ci bopp ba nag tànqal sa loxo yi nga bàyyi ndox mi wàcc nga masaa ku bu dee masaa nga bëgg a def mais soo bàyyee ndox mi muy sotteeku sa kaw bopp bi nga jublu ci masaa noonu rek yow xamal ne masaaxoo goo bopp jàpp li baaxut moo tax ne qaala wana al ujhuri ujhuri fi sharxi xalil ba muy sharxa xalil ne wala budda du mën a ñàkk mi naqlil maayi ci toxal ndox mi ila masira si jëm ci masa bopp booy masa bopp faw nga tànk ndox sa loxo bàyyi ko ba mu wàcc bàyyi ndox mi mu jeex nga door a masa falaw nazala bu wàccoon ala raasi ci boppam bi matrun taw yasirun bu néew wa masaa mu masaha bii ci moom laa jiw du ko doy bu taw wàccoon sa bopp bi nga raay raay sa loxo noonu rek ci kaw du baax xanaa sa loxo bi jeg ndoxam taw mi wàcc nga masa bu ba toxal nga ndox ba léegi waaye bàyyi ndox mi mu wàcc sa bopp bi nga masa noonu du baax ndax yow toxaloo ndox mi loolu na mooy boo ko bëggee masa wa amma law xasala waaye bu raxasoon soo bopp ba fala yajibu di war naqlul maa yi toxal ndox mi ilal xasli jëm ci ra jëm raxas ga dégg bu doon da ngay raxas bopp ba raxas moom na ndox mi yegg ci cër bi rek mooy sart ba waaye toxal ndox mi nag tànk ko sa loxo pour yeggale ko cër ba du sart kon booy raxas sa bopp bi mën ngaa bàyyi ndox mi mu wàccal boppam ba li fi nekk law nazala bu wàccoon ala raasi ci boppam matrun taw kasirun bu bëri fa xasala mu raxas raasoo boppam ajjaoo doy na ko bu fekkee dafay raxas bu dee dafay masaa du baax li an na naqala ndax toxal ndox lil masi pour masaa la laa lil xasli waaye nekkut pour raxas ne nag su fekkoon nag taw bi day wàcc sama loxo bi dajeeg ndoxam taw mi ma bàyyi ko mu wàcc ma massage sama bopp ndax dana baax mooy la baax na ndax loolu toxal ndox la li bon mooy nga bàyyi ndox mi mu wàcc ci bopp bi après nga jël sa loxo yi massa loolu mooy yàq njàpp wa mi ne naqli bokk na ci toxal mulaaqaatul matri dajeeg taw ba bi yeddi ci loxoom su ma yem saw topp mu masaara soo boxam bu dee sa loxo yi dafa dajeeg ndoxam taw bi sa loxo yi dafa dajeeg ndoxam taw bi nga door a masaa bopp loolu dara nekku ci kon sew sew bu nekk foofu daal mooy kuy raxas cër mën naa bàyyi ndox mi jiitu ko fa mën naa toxal ndox ci loxoom yóbbu ko ci cër bi raxas amma kuy masaa masaa moom faw nga tànk ndox sa loxo daal di masaa waaye bàyyi ndox mi mu yegg ci cër ba nga masaa ko du baax cër yi nga war a masaa boo ko raxasee dara nekkul ci kon boo jubloo raxas dana baax boo jibloo masaa du baax te kon ñaari nit mën nañoo bokk luñ def mais seen jubluwaay tax kii njàppam li baax kii njàppam li yàqu boo bàyyee ndox mi kii dafa bàyyi ndox mi mu yegg ci boppam mu raxas ko njàppam li baax na parce que raxas la jublu kee def ko ñu ne ko si njàpp li baaxul parce que masaala jub jubluwaay moo yàq yéene moo yàq seen mbir moo baaxal kee yàqal ko dégg nga wayu famu daneen dégg min xawli ci waxam yufriqu na ko teqale ale yi ci moom an am baam law arsala bu yónnoon almaa ndox bi bu yebaloon almaa ndox mi mi di jugee ci loxoom masaa mu masaa wajhahu kanamam bi baral yeddi yedday ci tooy loxoom la muy du ko doy loolu it kuy jàpp war na ko bàyyi xel ba mu la waxee boo tànkee ndox mi da ngay teqal ndox mi ca kanam ga mooy ne booy raxas faaw nga sotti ndox ci cër bi ngay raxas pour mu baax su fekkee dangaa def ndox ci sa loxo bàyyi ndox mi ba mu jeex takk xam nga loxo bi dana tooy nga raxas sa cër ba sa njàpp li baaxut kon loolu kuy jàpp na ko bàyyi xel beneen sew sew la foow nga sotti ndox ci cër bi ngay raxas door koo raxas mu baax waaye bu dee sa loxo yi dafa tooy kese ndox mi yëpp wàcc na nga raxas cër ba raxasoo dangaa masaa njàpp li baaxut loolu nag ku moytu def ko donc mooy tuut ndox mi mën naa wàcc sa loxo yi ba pare nga masaag maanaam nga raxas sa cër bi ci sa tooy tooy loxo bi fekk loolu masaag lañ koy tudde ba tax mu ne woowoo mbir mi kazaalika comme noonu la boo bàyyee ndox mi ba mu jeex nga masaa sa kanam wala sa loxo xamal ne masaa nga def masaa mooy bàyyi ndox mi ba mu jeex nga masaa nga raay cër ba si sa tooy tooy loxo loolu masaa la loolu boo ko defee si cër bu ñu war a raxas muy karam wala loxo wala tànk njàpp li du baax jàpp du baax kon booy jàpp cër bi ngay raxas heggale fa ndox ma door koo raxas ku ku moytu def lu mel noonu dem julli ji fekk jàpput wayu fa mu danañ dégg min taabir yi ca waxam ja ne yufrigu dana teqale ndox mi ca kanam ga lañ cee déggee mooy àndoo ne moom laa yu laptimu du mbéj wajhahu kanamam bi maa bi maa ci ndox bi quwwatin ci kattan kama yafalu comme nu mu koy defee an nisaaw yenn jigéen ña na firee ko yenn jigéen ña na firee ko jigéen ñëpp ndax am na jigéen ñi am xam-xam nee na bul jël ndox mi sotti ko sa kanam bu baax comme nu ko yenn jigéen ñi defee yaakaar ne da ngaa war a jël ndox mi dóor ko sa kanam mel ni kuy mbéj sa bopp mu ne déedéet demeewul noonu mu ne déedéet demeewul noonu ndox mi da koy def sa kanam gi nànk rek teqale ko ci ba ndox mi daj kanam gi yëpp nga raxas nga jël nga koy bu baax ci sa kanam fa innahu naka mbéj ndox mi ci sa kanam man hiin luñ tere laanul ci moom tere na ko wayin ajsa di la doy na ay su am bu matalee bu fekkee ci yëpp mat na maanaam kanam gi yëpp tooy na waaye da ndox mi si sa kanam da nga koo sotti bu baax njàpp li baax na mais defoo li mu ne wa fassar naa firee nañ la raxas ga bi ki ci ragg wax nañ na la booy raxas na ragg tanbihan la tanbihan rek la amut taa ngir xeey ngir xeey la ngir wan la ala an na dalk ne ragga waajibun la war a sol de bi waajiban la def an na dafay nasab lisim rafa xabar ala an na dalk ne ragg waajibun aji war la di naf si ñeel boppam daf na la raxas gi mooy ragg kon ragg dafa war waaye nag wax naa ne ci cëri farata mooy li war waaye ragg si jëri sunna moom sunna rek la raxas loxo yi ba ci takkukaayu njara yi bu dee jigéen wala takkukaayu montur yi bu dee góor kooku sunna la boo ko bàyyi woon te yaa ko tey sa njàpp li yàquut waaye te yaa ba gu bëri wàññeeku na ci yow te bu yàggee mën na laa yóbbee bañ a jàpp sax ndax boo dooyee dara yonent bi bu yàggee yàlla dootu bëgg ci dara loo ko defal moo tax lépp luy sunna dee ko def ndax yonentu kenn warul xeeb lam andi waaye soo bàyyi moom sunna njàpp lu yàqut cër boo xam ne boo ko bàyyee njàpp lu yàqut kon boo ko raggut njàpp lu du waaye mu ngi mel ni bàyyi ko amma cëru farata moom boo ko raggut njàpp li baaxut loolu waral ragg gi farata dafa war dafa war li naf si ci boppam xatta yu sama looloo tax ñuy tuddee alfian lu jëf ja raxas lan raxas ragg gi moom lañ tuddee raxas ndax boo raggagul rek mu ngi mel raxasoo bàyyi nga cër lanoo ndax ragg chartun charte la fi haqiqatil xasli ci dëgg-dëgg raxas raxas pour mu nekk raxas foo ragg am ca inda malikin ca ngiram malik ba dégg ci ne du luñ dëppoo malik moo jàpp ne ragg mënul ñàkk axzan ngir jàpp min qawli ci wax yonent bi alayhi nekk moom asalaatu xool wasalaam ak mucc de Aïcha te ñeen Aïcha arde yàlla gërëm allahu yàlla naa ci moom yonent bi te wax Aïcha te ne ko wa adliki wa adliki na nga rag adliki adlaka adliki wa adliki na nga rag jasadaki sa yaram bi yadaki ci say loxo waaw yonentu daf ko digal ne ko booy sangu dégg nga na ragg sa loxo ci sa yaram te sangoog njàpp yëpp benn la kon it booy jàpp danga ragg sa loxo ci sa yaram <laughs> noonu lañ ko jàppee mu ne wal amru digle lil wujub bi war lay tekk yonentu bu la digalee ne defal dara rek dafa war lu mooy ñu am tegtal buy wane ne warut suñu amee tegtal buy wane ne warut ñu xam ne ndigle gi tekkiwut ak war waaye lay cosaan ci digle mooy war kon buñ digalee ndey Aysha ne ko da nga ragg kon ragg dafa war wala farq de teqale al mazhabi ci ngir mi baynal wudu yi diggante jàpp wala xusli ak sangu al xuslu mooy sangu xaslu mooy raxas jàpp ak sangu yëpp benn la kon bu ragg waree ci sangu dafa war ci jàpp te yonentu digle na ko li mu digle mooy war kon am na ay yeete yum ci def benn bi mooy wannal na la bopp bi foo nga toxal ndox mi yeggale ko fa bu dee da koo bëgg a mësal waaye cër yi ngay raxas tamit foo nga jël ndox mi sotti ko door a raxas boo bàyyee ndox mi ba mu wàcc sa loxo nga raxas ko sa tooy tooy loxo yow jàppoo asaani ñaari yeeteel ba afamu dana afama déggal déggaloona déggaloona xawloo waxam bi day ci loxom da nga ragg ci sa loxo loo ciy déggee lum lay déggloo dana déggloo ne an lii mbir te mbir yajibu dana war ala insaani ci doomu aadama an yu waddi am mu jàppal nafsahu boppam daf na da nga raxas sa ñaari loxo mooy ne yaa war a jàppul sa bopp yaa war a sangul sa bopp ndax xadis sangu bi daf na si sa loxo wala yajuusu du dagan la wu ñeel ko al istinaabatu wuutul ala fi'li ci jëf ko aw ala dalki wala ci ragg faqat dong kaay jàppul ma carrément nga xam ne yow da ngaa toog rek waa ji moo lay galaan moo lay galaan digul moo lay soron digul moo lay raggal say cër loolu baaxul loolu baaxul wala boog yow yaay sotti waaye waa ji moo lay raggal baaxut ndax yow yaa war a raggal sa bopp illa min daruratin lu mooy ngir lor fay juusu dana dagan su fekkee mënoo ragal sa bopp man ngaa wuut ku la ragal ndax loo mënul man ngaa wut ku la ko defar moo tax mu ne li fi nekk sax waxuma sax ne dafay dagan waaye léeg-léeg mu wax yajibu dana war ala naxwil aqta'i ci ku mel ni ku dagg loxo istinaabata man yu watti man yu waddi uhu war a doon mu ni waddi uhu ñaari téere bi da ko yàq xale bi ni bind noonu da ko yàq téere bi ci cosaan daf ko yàq wuutal ku koy jàppal aw yu dalliku wala muy raggal lahu ñeel ko in qadara ne mën na al istinaabati ci wuutal su fekkee cër yi dafa dagg moom mënul jàppal boppam du tax njàpp war ko dafay nekk farata ci moom mu sant ku ko jàppal su fekkee mënu sotti ndox mënu dara dafay wut ku ko jàppal bu fekkee ne ragg rek la mënul dafay wut ku ko raggal moom mën na di sotti boppam waaye mu wut ku ko raggal dégg kon ku mënul ragg dafay wut ku ko raggal loolu lu war lay doon bu ko mënul dafay wut ku ko raggal loolu dégg gis ne ku feebar bu mënul dara mënul yëngatu mënul def dara bu dee am na ku ko jàppal dafay war mu wut ku ko jàppal hmm? ndem mën naa jàpp maanaam ndem mën naa yéene moom day wut ku ko jàppal parce que dafa feebar mënul jàppal boppam wan niyatu yéene ji nag meneen mustani bi mu ngi jugee ci aji wuutal je yow mi ñuy jàppal yaay yéene loolu nag ku mënul jàppal boppam moo ko moo koy def waaye koo xam ne nit nga ànd ak kàttanam dara dalu ko mu jël benn nit ah, nit ki di ko jàppal di ko di ko raggal cëram yi loolu baaxut nit ki mooy sot sotti di ragg cër ya jàpp li baaxut ndax moom moo war a raggal boppam su fekkee nag mënul dara wala loxo yaa dagg nit ki mën na koo sottil di ko raggal cëram ya waaye moom mooy yéene bu yéenewut du baax ku feebarit noonu ba mënul ragg mënul dara dañ koy war a jàppal pour mu julli waaye nag jàpp wàccagut ko hmm. dem man naa jàpp rek man naa am ku ko jàppal dañ koy jàppal amaa su fekkee dara jotul la wala boo kum mën a doon waaye daf lay sotti ndox rek waaye yaa raggal sa bopp loolu dara nekkut kon ñu lay sotti ndox ngay jàpp dara nekkut li xaraam mooy ñu di la raggal loolu moo xaraam falaw istanaaba bu wuutaloon alal wudu ci jàpp aw ala dalk wala ci ragg kese ixtiyaaran ci tànn fa xawlaani am na ñaari wax al mutamadu dañ sukkandikoo minuma ñoom ñaar adamu ijzaayi ñàkk doy su fekkoon ne moom moo tey rek dégg nga adamu ijzaayil istinaabati déedéet de adamu ijzaayil ñàkk doy moom moo tey rek wut ku jàppal defut dara waa ji moo koy jàppal cëram yëpp wala boog moom sax moom mën na di sotti ndox mi waaye ji moo koy raggal raggal la koy def am nga sotti ndox ma amul problème ku ne mën na laa sotti ndox kon bu ñuy wax jàppal la mooy ñu ragal la rek loolu rek lañ koy tudd kon boo wutee ku la ragal te yaa ko tey am na ñu ne njàpp li baax na de waaye nag lañ sukkandiku mooy njàpp li baaxut muraatan boo sàmmanteeg yeneen ngir yi ñoom ragg du farata kon njàpp li day baax am ñu ne déedéet njàpp li baaxut li gën a dëgër ci ngiram Maalik daal mooy bu la keneen ragg day njàpp li baaxut parce que yaa war ragal sa bopp. Eh, yokkal foofu waaw ne wal istinaabatu wuutal nag ala sabil maayi si sotti ndox mi kese fay juusu dana dagal bu nit ki dalay sotti ndox rek waaye yow yaa ragal sa bopp nee na loolu moom dara nekkul ci dagan na kon ñaareelu yeete bi mooy dem man ngaa raggal sa bopp yaa war a ragal sa bopp ndax nit moo war a jàppul boppam boo mënul ragal sa bopp nag taxul jàpp wàcc la daf lay war nga wut ku la ragal nga wut kura la ku la ragal dégg nga soo mënul ragg wutoo amoo ku la ragal yow sotti ndox mi rek ragg wàcc na la dégg nga yow ragg kenn mën gisoo ku la ragal yow ragg wàcc na la sottil rek ndox mi jeex na ci cër yi boo mënul sotti ndox mënul dara nag yow yow lépp na la ku mënul jàpp mënul tiim nag julli wàcc na ko far moom kon lislaam loo dem ba lott ci mënoo ci dara daf la koy teggil mais su amee ku la ko mën a defal kooku daf lay wutu defal la ko asaalisu ñetteelu yeete ba law ukriha buñ forcé woon sax suñ jëmm ala ci jëf njàpp dañ laa forcé na la jàppal <laughs> jàppal su fekkee dangaa jàpp ngir forcé ga rek yow yéene woo jaamu yàlla njàpp la baaxut kañ lay jàpp ni ñàkk baax mooy ne mënoo bañ yow sañoo bañ dañ laa forcé sañoo bañ nga jàpp te yéene ci jaamu yàlla njàpp la su fekkee nag dañ laa forcé sañoo bañ waaye danga nga cee yéene waale jaamu yàlla njàpp njàpp la baax na kon buñ la forcé nga jàpp njàpp la baaxut buñ koy wax mooy boo yéene nga xam ne force bi rek moo la tax jàpp amaa soo ci yéeneen jàpp di dana baax moo tax ñu jàpp ne bu dee bañ la forcé man ngaa bañ boo jàppee yaa ko tey kon boo yéeneen jàpp di baax na waaye même boo mënee jàpp tamit maanaam boo mënee bañ tamit nga jàpp te yéene woon jàpp li baaxul ba léegi kon tënk-tënk bu foofu mooy njàpp loo amul yéene jàpp mu jàpp loo xam ne borom yéene wut te jàpp leneen a tax mu def ko njàpp loolu baaxut rek mooy tënk-tënk bu ci yéene jàpp nag di la leneen tax na sax mu yéene jàpp la baax na parce que jàpp bu àndeeg yéene ànd ak farata dara mun ko yàq la ukra buñ forcé woon sax suñu jëmm ala fian la wudoy ci jëf njàpp mes yestatin bu attanut a defan défendre han nafsi ci boppam maanaam bu munul bañ laa yu jiw du ko dooy xaadar wudu bi na njàpp li àq di niyati ngir fas yéene ci maanaam yéene ji fas wut wa ma instatan waaye bu ma ne al muxaalafata bañ wa faalawu mu def njàpp la maal ikraay ànd ak forcé ga ajjaahu doy na ko xay su wajidat bu amee buñ xay su wujidat amee an yeetu yéene bu dee naa bañ sax ñu forcé ko waaye forcé bi tax na mu jàppale ma mënoon naa bañ bañut bu jàppoo yéene baax na bu yéenewul baaxul kama annoo comme ni nga xamee ne moom jiw dana ko doy isa na waa bu yéenee fienloo def ko indal ji bu lottee anil muxaalafati ci wuutee fii maa zaru ci du feeñ naka noonu it bu fekkee dañ koo forcé ne ko jàppal mënul bañ sax waaye yéene na jàpp jàpp li baax kon daal li gàtt ci gàttal li mu bëgg li mu war a wax rek li bëgg wax rek mooy buñ la jàppaloo xee nga jàpp te yéene baaxut jàpp loo xam ne borom yéenewul jàpp leneen a tax mu def ko baaxut waaye saa yu yéenee jàpp di la dañ koo forcé sax leneen tax na sax waaye moom yéene na jàpp jaamu yàlla su boobaa baax na loolu mooy wax ci kañ lay baax mooy bu fekkee yow miy jàpp yaa ragg waaye bu dee waa ji moo la forcel raggal jàppal la ba jàpp di baaxul moo tax ma kaana bu nekkee addal ko ragg ga waaqian di aji tabbi minal mukrahi ca koñ forcé bil fat yi ca fata xam nga mukra ci akraha la jógee mukra mooy ismu mafool ba akraha yukrihu mukrihun mukrahun mukrahu mooy kañ forcé bu dee kañ forcé mooy ragg baax na waaw maa in kaana waaye bu nekkee addal ku rag waa xaan daa ji xew minal mukrihi ca ka forcé bil kasri nga kasara raaga falaaye siw du wér al wudu njàppali anil ma alal mashhuri ci wax ju gën a siw mooy min annal istinaabati ngir ne wuutal fii ci rag laaye siw du wér illaa illaa inda darurati lu mooy si jamono lor nga kaw nii ni ki nekkam za afatin borom a gàkk-gàkk maanaam loxo bi dafa dagg awaali leen wala mu feebar kama qaala comme nu mu wax ibnu Rushd bu waa ji la force daf laa force jàppal la raggal la sa cër bàyyi ko mu ragg ba pare rek boo paree yow boo bëggee jàmm yàlla dem jàpp ji waaye loolu du dara jàpp woo daal ndax raggal naa la te yow dara jotul la yaa waroon raggal sa bopp waaye nag buñ la forcé nga raggal sa bopp yéene jàpp njàpp di baax boo baqee des na law ukriha buñ ko forcé bu law akraha bu forcé woon saxsun jëmm saxsan jëmm ala tarki dalki ci bàyyi rag wa makkanahu mu jàpp mu may ko maanaam mu jàppandal ko min fi'il wudu yi ci jëf njàpp fii moom waaye def na jàppal man ngaa jàpp waaye nag doo ragg boo raggee ma duma la ndax jàpp baax na baax na ndax yow ragg mënoo ko buñ la forcé rek mënatoo ko te boo mënul ragg-ragg wàcc na la kon buñ la mayee nga jàpp waaye ñu forcé la nga ragg ragg wàcc na la tooyalal céeri rek dem julli loolu loo ciy déggee mooy ragg balaa mu laa war nga mën koo defal sa bopp wala keneen man la koo defal amma su fekkee yow mënoo raggal sa bopp keneen mënu laa raggal ragg wàcc na la dañ laa forcé mënoo ragg te muy la keneen raggal la jàppal boo paree nga julli ji lam yéene nga rek njàpp li baax moo tax mu ne wa zaahiru lu feeñ ban li fi nekk almutaayan almutaayanu la ràññeeku nga xam ne loolu rek lañ war a jàpp sihatu wudu yi mooy wér ak jàppam lan na dal ka ndax ragg innama yajibu naka dana war indal qudrati si jamono kattan ragg balaa mu laa war nga mën ko waaye soo ko mënut warul la kon bàyyil xel lool boo ko mënut rek warul la kon digg bi yëpp lim doon wax rek mooy nit moo war a ragal boppam buñ la ragalee te man nga ragal sa bopp njàpp lu baaxul boo mënul ragal sa bopp it bu mu tax nga dem di tiim de da ngay ku la ragal waaye yow yaa yéene dégg nga boo wuutul ku la ragal it ba léegi njàpp nga la war waroo tiim tiim warul la njàpp li daf war yow dégg su fekkee def loo nañ la jàpp te yow jàpp boo ko defee loolu du jàpp karaax moo jaamu yàlla yi jublu yàlla gi rek moo ko tax nekk jaamu yàlla jaamu yàlla yëpp mën nga wax ne ay yëngatu la wala ay def wala ay bàyyi waaye dara dara mayut ko daraja jooju dara mayut ko garaat boobu lu mooy la ci jublu yàlla moo tax nit yëngatu gum def te yàlla tax rek loolu loolay jaamu yàlla yëngatu ngi jublu ci yàlla boo doon jël ndox di sotti sa mbagg mi ak doq ga ak ak ak ak ak ak ak ak ak gannaaw ga kenn du ko tuddee jaamu yàlla amu ji benn tiyaab pourtant moo jàpp niroo nañ de xam nga sangu sax bu fekkoon sa yaram bi dafa tilim rek nga dem sangu parce que da ngaa bëgg a set amoo ci tiyaab te boo sangu-sangu farata da ngay am tiyaab lan moo leen wutale bii da nga cee jublu yàlla bii jubluwoo ci yàlla kon jàpp loo def te jubluwoo ci njàpp baaxut boo jubluwoon jàpp nag ci lay ci lay baax kon jaamu yàlla mooy yëngatu goo man a nekk ngir yàlla rek loolay jaamu yàlla loolu sax mooy mooy julli mooy julli parce que julli ay yëngatu la yoo xam ne nit ki def cee jublu boromam loolu waral alquran tagg ñi nga xam ne alladina hum ala salatihim daayimun am na ñoo xam ne sax ci julli maanaam foo leen fekk seen yëngatu seen dal yàlla tax ñooñu kon ñu ngi julli saa su nekk amaa bu fekkee yow yëngatu te yàlla tax ci julli juróom rek nga koy def yow julli juróom rek ngay julli waaye koo xam ne ni boo ko fekkee muy dox sax ci mbiram yàlla lay dox buy nelaw sax dafa jublu noppal jëmm ji ngir lan ngir bu jógee mu mën a sawar ci jaamu boromam parce que léegi bu ko sonalee dana ko lottuloo ci jaamu boromam mu noppal ko ngir loolu buy lekk sax dafay lekk ngir jublu kàttanal jëmm ji pour mu mën a joxe ak yàlla ji dégg nga buy waxtaan waxtaanam sax daf see jublu dégg nga topp yàlla ci tegtal nit lu baax wala boog dugal mbégte ci xolu doomu aadama dégg nga wala boog gindi ab doom aadama kooku léppam jaamu yàlla la kooku amatul aata kooku toujours mu ngi ci julli su ko defee kon jaamu yàlla na ànd ak yéene na gi mooy nga jublu ci sa borom ne man yàllaa ma sant lii rek def naa ko xam nga xikmatu li tax yàlla sant la ko xamoo xikmatu bi defal boo demee nag ba critique yàlla ci lenn lu mu la sant rek yow léegi yow yaa yàlla yow yow léegi taxaw nga place yàlla nga ne yow yaa gën a xam yàlla mais boo jàppee ne lu sa xam-xam rëy rëy yàlla xam lu bari loo xamut dana la sant loo xamut nga nekk ci nga nekk ci te xamagoo xikmatu ba saa yu ko neexee mu xamal la kon su ko defee jaamu jàpp bu la jàppaloo te yéenoo jàpp baaxut parce que yéenoo ci jaamu yàlla loo mënul it wàcc na la araabi wu ñeenteelu yeete ba te defe naa ne moom mujj darsu bi mooy law wakkala bu bàyyee woon jamaatan mbooloo li usrin ngir ngànt fa wadda uuhu ñu jàppuloo ko jumlatan mboolem seen waaxidan benn njàpp ndax saxa wér na wudu uhu njàppam xay sunna waawu bu yéree jàpp li adami fardiyati tartibi ngir ñàkk nekk farata toppalante njàppale ay ndanaa fa ñun alal mazhab bi ci ngiram Maalik xam nga nii ñu xam ñuy jàppoo mu njëkkee loxo yi teg ci kanam gi galaxandiku sëlmu masa bopp lo tànkee maanaam loxo yi nga ci teg masa bopp kor ko nopp tànkee loolu du farata boo jàppoon commencé ca tànkee mujjee ca loxo yi njàpp di baax na waaye bàyyi nga toftale njàpp di bàyyi nga dugalante it farata yi toppalante ko loolu du yàq njàpp waaye bàyyi nga sunna kon toppalante njàpp li noonu du farata ci ngiram Maalik loolu waroon bu doon da ngaa feebar ci misaal dafa feebar ci misaal bu doon dafa feebar muur mbooloo di ko jàppal kii ñëw raxas loxo ya waaye ci jamono bi waaji raxas loxo ya am na koo xam ne ngay galandiko ci jamono boobu am na kuy sorondiku am na koo xam ne ma ngi ci tànkee ma ngi ci bopp ba xam nga kooku benn cër jiituwul moromam ndax ñëpp defandoor mën naa am sax cër yi ñu waroon mujjee jiitu far njàpp li baax na kenn ku nekk nag lenn nga ko defal ci njàpp li njàpp li baax na waaye nag toppalante wut farata yi dégg nga toppalante wut toppalante wut farata toppalante farata sunna la waaye toppalante sunna yi kooku ngëneel la dugalante it farata yi ak sunna yi kooku ngëneel la hmm? léegi su ko defee ñu teqale lool toppalante farata foo ko fekk rek mooy njëkkeel farata bi njëkk teg si bis topp teg si bis topp ba mu jeex farata bis njëkk mooy yéene kanam ga loxo ya bopp ba tànk ba saa yu njëkkee raxas loxo ya door a raxas karam nga rek bàyyi nga toppalante farata kon toppalante farata buñ ko waxee nekkul ne mooy nga dugalante njàpp li comme nii ñu ko xamee déedéet mooy farata bi njëkk na njëkk dégg kon toppalante farata yi buñ ko waxee mooy farata bi njëkk na jiitu kon toppalante farata buñ ko waxee mooy farata bi jiitu na jiit bi ci topp topp ci ba mu jeex loolu mooy toppalante farata yi amma toppalante sunna yi mooy sunna bi njëkk na njëkk ci ni ngay jàppoo dugalante farata yi ak sunna yi mooy nga jàpp nit mii la jàpp léegi-léegi jàpp boobaa après bu ma leen kii naa laaj ngeen joxe ci misaal jàpp man naa am toftalante sunna yi waaye amul toftalante farata yi mooy lan mooy waa ji dafa ñëw raxas loxo ya gëlaxndiku soraxndiku fiiru dem raxas loxo yi ba ci conc yi xam nga kanam gi la war a njëkkee moom mu raxasee loxo yi ba ci conc yi ñëw sël mu raxas karam ga dem raxas tànkee ñëw masaa bopp delloo masaa bopp korokoro noppi sunna yi moom gis ngeen ne bi mu njëkkee la war a njëkkee ba mu jeex kon toppalante na ko mais njàppal lu mu ci bàyyi toppalante farata ya moom la ca ba toppalante farata yi nag ko ko bàyyi noo koy defee rek danañ ko wax léegi yàqul jàpp nag boo ci jullee julli gi baax na jërul baamu mais am na lu ñu ci sant kooku toppalante farata yi la bàyyi léegi-léegi nit jàpp toppalante sunna yi waaye toppalante wu farata yi yomb naa misaal waaye dafa ñëw rek soroxandiku galaxandiku dem raxas loxo yi ba si takk njariñ bu ko defee sël mu raxas bopp ba maanaam raxas kanam ga raxas loxo ya masaa bopp dem korokoro nopp delloo masaa bopp ragg tànk kooku toppalante na farata waaye nag toppalante wut sunna kon kooku toppalante sunna yi la ba léegi-léegi nit jàpp toppalante farata yi toppalante sunna yi mais dugalante wut leen misaal moom mooy dafa ñëw rek raxas kanam boobu nag moom foofu farata ngay njëkkee danaa wax lu tax ma farata ngay njëkkee pour mën ko misaal dafa ñëw raxas kanam raxas loxo ya masa bopp dem raxas tànk toppalante farata yi ba ñëw raxas loxo yi ba si takk njëriñ galawandiku sorondiku fiiru delloo masa bopp korokoo nopp kook toppalante na farata yi toppalante na sunna yi waaye dugalante wul leen misaal moom boo koy njëkkee njëkkee sunna yi rek du baax parce que boo njëkkee raxas loxo galawandiku sorondiku fiiru hmm, dégg nga ne ne da ngay delloo ma saa bopp bopp moom ba nga njëkk laal rek mooy farata kon yow boobu def nga farata ndax bopp ba nga njëkk laal rek mooy farata moo xam ca ndonga nga commencé wala ca wet ya wala ci njël bopp bi parce que commencé ma saa ci njël bopp bi nga neel rek la moo tax bopp moom ba nga njëkk a laal mooy farata bu ñaareel bi mooy sunna kon booy misaal toppalante farata yi kese ak sunna yi kese mais dugalaantuwu leen doo njëkkee si sunna boo njëkkee si boo demee ba ca bopp ba rek yow def nga farata foofu kon su boobaa boo njëkkee euh, euh, bopp masaa bopp ci ay farata yow toppalante woo farata yi yaakaar naa wax noonu seen kon toppalante farata yi kese dafa am kooku sunna la toppalante sunna yi kese dafa am kooku ngëneel la maanaam boo ko bàyyee dara nekku ci waaye nag wa tiyaaba gi wàññeeku na dugalante farata yi ak sunna yi comme nii ñu ko xamee ci njàpp kooku it ngëneel la boo ko bàyyee dara nekkul ci ñoom ñetti ñëpp benn bokkul ci ak moromam bu nekk joxe xanaa ci misaal léegi ku bàyyi toppalante sunna yi dara nekkul ci na dem rek dara nekkul ci amul defar amul dara hmm? ku bàyyi toppalante dugalante sunna yi ak ngëneel yi baax na na dem julli ji dara nekkul ci dégg nga waaye nag ku bàyyi toppalante farata yi moom ku bàyyi na sunna te sunna dafa xaw a dëgg nii la koy defaree moo tax mu ne waa ji nit ñi jàppal mbooloo jàppal kooku koku bayina sunna moy toppalante faratay numi def mune ila annahu lum la illa annahu lumayna wajoju wala bok illa annahu lumayna lolu tan ki sun ñett ñap la deng illa annahu lumayna lolu tan ki sun ñett ñap la hukuman ci att ñett moy nga ñeké la wor won ñeké kon bu la mbooloo jàpp eh, bu la mbooloo jàppandooloo maanaam bu la fekkee mbooloo ñoo la jàppal si même waxtu yow sa njàpp li toppalantoo ko kon luy atte ba fayu sanu danañ sunnaal du farata de danañ sunnaal iaadatul mu nakka si baamu lañ baam baamu lañ njett la nekk ca gannaaw bil qurbi bu jegee wax doo moom maama baadu ànd ak la ca gannaawam bil xurbi ci lu jege yokk si wax doo ak moom dong maal bon di ànd ak sori li ajli sunniyati tartiib bi ngir sunnaak toftale benn faraay bu doy diggante fartaay jàpp yi loolu nag boo gisee mu ne bu la mbooloo jàpp jàppaloo da ñett si njàppale da nga koo juutal maanaam dina la juutaloo ko sax mais niru na juutal parce que njëkkewoo benn teg beneen da ngay mel ni ku bàyyi toftalante farata yi ku bàyyi toftalante farata yi ni muy def nag mooy dafay baamuwaat cër bi nga xam ne nii moom la mujjee te waroon koo moom la euh, njëkkee te waroon ko mujjee moom la njëkk a raxas te waroon koo mujjee boobu la njëkk boobu rek lay baamuwaat bu dee jege na ak la ci gannaaw bu dee yàgg na mu baamu ko moom kese misaal ma. mooy da nga jàpp ci misaal nga njëkk a raxas sa loxo yi ba si takk njar yi dooroo masa door raxas sa kanam gi yow njàpp li baax na waaye da ngaa bàyyi toftalante faratee ba nga ñëwee ba ci loxo yi loxo yi nga raxas door a kanam nga continuer sa njàpp njàpp li baax na waaye ñett nga sa njàpp li bàyyi nga toftalante faratee noo koy defaree cër bi nga njëkkee te waroon koo mujjee moom ngay raxas léegi comme que raxasoon nga kanam gi bu dee jege na da ngay ñëwaat raxasaat loxo yi pour loxo yi mujj kanam. doo raxasaat kanam gën a jëru raxas parce que raxasoon nga ko kon loxo yi ngay raxasaat masaat boobu delloo masaat boobu korokoo nopp dem raggaat tànk kon ku bàyyi toftale farate yi buy jegee dafay ñëw raxas cër bi nga xam ne moom la njëkkee te waroon koo mujjee ak li nekk ci gannaaw cër boobu yëpp mu raxasaat leen moo tax di njàppale amma bu dee dafa yàgg mu door koo fàttaliku kooku dafay ñëw raxas cër bi mu njëkkee woon te war koo mujjee si misaal loxo yi la njëkk raxas doo raxas kanam ba mu yàgg mu doo ko fàttaliku na ñëw raxas loxo ba rek julli gi mu julli woon nag baax na parce que sunna rek la baax loolu nag mooy def na lépp waaye dafa bàyyi toppalante gi kon bu la mbooloo jàppalee dafay mel ni bàyyi nga toppalante te boo bàyyi toppalante nag yow dafa mel ni sa njàppale yëpp toppalante nga ko toppalante ko kon dafa mel ni li gën mooy nga jàppuwaat rek pour lépp toppalantoo waaye boo julli woon si julli googu njàpp baax na lii nag bokkut ku bàyyi cër carrément ku bàyyi ku bàyyi toppalante farata yi lañ la wax ne la fexe cër bi mu njëkkee rek mu raxas ko ak la ca gannaawam bu jegee bu dee dafa yàgg nag mu raxas ko moom kese julli gi mu julli woon baax na ku bàyyi toppalante sunna yi wala mu bàyyi dugalante sunna yi ak farata yi kooku moom dara nekkul si jër amul nuñ koy defee baax na amma ku bàyyi cër carrément kooku da ngay xool bu dee cër bi mu bàyyi farata la ni ki kanam gi raxasut ko kooku njattut dafa raxasut kanam gi jàppale baaxut bu julli woon fukki julli dana baamuwaat njàppale julli waat julli yëpp julli yi baaxut njàppale baaxut ndax lim bàyyi farata la amma ku bàyyi sunna njàppali baax na waaye rek bëgg nañ mu defar sunna boobu ndax julli yi ñëw am njàpp lu mat moo gën njàpp lu manqué léegi ku bàyyi sun farata moom fekk mu ngi ci jàpp nu mu koy defaree ci misaal dafa doon jàpp bàyyi raxas karam ka moo ku njett farata niroo nañ waaye bokkuñ at moo ku njett farata laa wax niroo nañ waaye bokkuñ at dafa bàyyi karam gi yëpp raxasut ko nu muy def dañ naan bu ko gaawee fàttaliku dafay raxas kanam ga ak la ca gannaaw ga cer bi mu fàtte cëru da koy raxas ak la ca gannaaw dem julli baax na dafay jàpp bàyyi raxas kanam ga jàpp ba pare rek fàttaliku na ñëw raxas kanam gi loxo yi bopp ba masa euh, ak nopp yi ak tànk la amma bu raxasoon kanam gi rek tax dem jàpp baax na kon raxas kanam gi ak la ca am dañ koo sopp rek te mooy bu ko gaawee fàttaliku bu ko yéexee fàttaliku nag dafay raxas kanam nga rek julli gi nag jërul mu koy julliwaat kon ku bàyyi farata gaaw koo fàttaliku daf koy def ak la gannaawam la ca gannaaw nag dañ koo sopp rek bu ko yéexee fàttaliku nag mu def farata googu kese julli nag da koy julliwaat ndax yàqu na te saa yoo julli ba pare door a yéex nga ko fàttaliku amma ku njëtt farata bu gaawee fàttaliku da koy def ak la ca gannaawam cër ba mu njëkkee woon te war koo mujjee mu lay def ak la ca gannaawam waaye nag bu ko gaawee bu ko yéexee fàttaliku bu ko gaawee fàttaliku day def loolu bu ko yéexee fàttaliku nag cër boobu kese lay lay raxas la mu wuteeg farata gi mooy farata gi da ngay baamuwaat julli gi te moom doo baamuwaat julli ñett farata doo baamuwaat julli gi waaye bàyyi farata complètement da ngay baamuwaat julli gi amma sunna moom boo ko bàyyee nga gaaw koo fàttaliku dañuy xool dégg nga mm, waaw sunna boo ko bàyyee nga gaa koo fàttaliku dañuy xool bu dee yaa ngi ci cëru farata bu dee yaa ngi ci cëru farata dangay xeggali sa njàppali ba pare door a ñëw defar sunna sa loolu jara bàyyi xel la dégg nga kenn du bàyyi farata di defari sunna danga bàyyi gàllaxndiku ba commencé sëlmu yeggalil sa njàppali boo paree nga ñëw gëlax ndiku dem julli julli ko baax na danga bàyyi delloo masaa bopp ak korokoro nopp ba commencé raxas tànk yeggalil sa njàpp njàppali boo paree ñëw delloo masa bopp korokoro nopp kon ku bàyyi sunna ba commencé farata dafay yeggali farata ja ba pare dooru ñëw def sunna amaa ku commencé sunna nag ba nekk ci sunna dafay dëpp pour toppalaati sunna yi mën am dafa bàyyi galaxndiku ba commencé sorandiku na dëpp dem galaxndiku ñëw sorandiku kon ne jàpp ba pare dem julli ci bu bàyyee sunna ba njàpp ba pare nag julli naam julliwut yàgg naam yàgg yàgguwut dafay ñëw def sunna boobu rek dem julli ci dara nekkul ci comme ku bàyyi galaxndiku ba jàpp ba pare dem julli fi door ko day galaxndiku rek galaxndiku gi lu tax mu koy def pour julli gi ñëw mën a am sunna yu mat waaye julli gam julli woon moom baax mu ne xaala wana xalil xalil wa tartibu sunan yi ak toftale sunna yi aw ma faraid yi wala ànd ak farata yi toftale sunna yi kooku ngëneel la aw ma faraid yi wala ànd ak farata yi mooy dugalante sunna yi ak farata yi kooku ngëneel la toftale farata yi nag mooy sunna lii xalil ba muy lim ngëneel la ko andi fa yuaadu danañ baamu al munakkasu lañ ñett wax dawoo moom dong cër bi nga njëkkee te waroon koo mujjee te muy cëru farata moom rek ngay defar in ba bu dee diggante bi dafa sore ba nga ko fàttee ba nga ko fàttaliku bi jafaafin sore gi mooy cër ya waw waaye sore gi mën nga koo takk ci aada rek wa illaa ndem sorewut cër bi nga njëkkee te waroon ko mujjee te muy cëru farata ba nga ko ko sorewut na nga defaat cër boobu maataa bi ànd ak la ci topp da nga defaat cër boobu ak la ci gannaawam comme noonu ñu ko waxee woon إن الإسلام واستطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته